wax léegi parce que nit ki moom faaw nga ko yóbbante ay ngërëmam. ah waaw waaw. voilà nga nga koy nëbal liñ ko xase. Mm. te naan ko moytu. <laughs> <laughs> waaw moytu nag euh, yow moom yaa gën a viral fan yi quoi. waaw ah. dina jaale Samba Ndiaye bi Samba Ndiaye. <laughs> man kay man kay damaa dem ba ma ne léegi déedéet mooy woowee bàcc. waaw ba affaire yi passé. dama dégg affaire sama xel ñëw cookaa ma ne eh. bàcc bàcc mii. Eh, patriote yi yàlla baax na yàlla yàlla def leen sutura te ñu ñaanal mbokk yi nga xam ne tamit ñoo ñu di apprécié mm-hmm. noonu la ñuy xaaree ci ñoom tamit bu ñu gisee lu ñuy rectifier tout à fait ñu defal ñu ko mm-hmm. waaw loolu dafa am solo lool na solo trop waaw ndax yoon du jeexul waaxasul du jeex mm-hmm. te ñu ni neen la quoi voilà nit du matul quoi ñu jaajëfal leen mën nuyu kundul tamit euh, di ko ziar Euh, di ko jaajëfal ñaan yàlla bàyyi ko fi ñu yàgg di day ci jeetaay bi ak yow. amiin euh, trio la xam nga wala dio. trio trio trio trio la trio mooy <laughs> voilà trio bi daal yàlla yàggal ko. alors amiin yàlla def sutura merci waay. jërëjëf oustaz euh, di dalal ci euh, le grand politologue ah léegi dama koy woowee le politologue quoi <laughs> ah ndax euh, émission bi passé dama toog di ko sib saak ma ne mais politologue yi ñu ngi ci biir dëkk bi di làqatu sëñ Bécaye Coumboul géej euh, Guédiawaye info ñu ngi lay dalal di la ziar waaw bàcc maa ngi laa nuyu di la fay bu baax a baax a baax di nuyu oustaz mm-hmm. di am mbégte nag ak kontaan bu mag a mag a mag a mag ci daje bi mm-hmm. wala oustaz wax dëgg la daanaka suñ toogee semaine ba semaine sax ñu war a daje waaw waaw dañuy namante moom nag lu muy tettal rek mooy maam jataay bi am solo gi mu am solo. waaw oustaz moom mënuñ ko fay yàlla na yàlla fay ko mbaax. Mm-hmm. wax na ma léegi ay yóbbante man tamit sama côté noonu la koy gars waxee mm-hmm. mu ne ko day wàttlu waykat boo waxoon benn arif billahi mu ne isa wa amaltu kulla annaasi bilxasan mm-hmm. lam taadimil xayri min zil xarsi taxrujuhu wa shukra min xalq fi sirri wal xalani mm-hmm. waaw isa xawaytu xisaaran xayra ajmaaha bu yàlla defee nga yore jikko yu bëri yoo xam dafa dajo ah, baax nga nit ku am jikko yu kaw nga dara mënu ko

bàcc tey man dama am mbégte bu mag a mag. Hmm. tax pour la première fois ci sax mu am. soo benn rek moom mooy yéer bi. ndeysaan tailleur la ñoo bokk benn baay. ah waay wallaay yal na ràpp ak jàmm a munuma grand tey moom dama la bëgg may benn yéer soo dee nangu. mais yéer bi dafa rafet. dafa rafet yàlla xam na loolu. waaw taxale bu ah, ndaw la ah. ndeysaan yal na bi tamit sama benn xarit bu tudd Baye. waaw di dem benn surtout Baye Niass di jaay ay mbax na nekk Nigéria di jaay jëlee Nigéria di ko jaay vraiment mbax na yi am qualité mm. bëri na kilifa moo leen te moom sax moom dafa dafa marié ak ak yéen mu may ma ko nekk neel Baye moo ma sama wàll de sa bota fa ko jot <laughs> vraiment ñoom ko defee sant nit ñi doo sant déedéet dëgg yàlla ñu ngi lay gërëm bu mm-hmm. bu oustaz bi nag kooku moom dara ci xar sama tànk <laughs> oustaz nga am <laughs> ah. ñu tàmbali ci waxtaan bi kon jërëjëf Baye jërëjëf jërëjëf euh, Bécaye Coundoul euh, borom euh, Géejawaay info ni mu ko waxee rek jotaay bi dafa am solo lool ñu tàmbalee ko ak Oustaz. Mhm. gars yi de depuis dem ñu ngi caw ci caw cawtee nomination Samba Ndiaye mu nekk loo xam ne daal dérangé na leen yéen patriotes yi waaw ci dérangé Oustaz. xam naa ne dama bokk ci benn panel njaay ak jóobeen yi nekk fi quoi di sànnante xeer <laughs> yàq na suñu askan <laughs> njaay di daal yàq na suma askan quoi. Mhm. waaw moom quelque part suma goro la parce que moom suma goro bu jigéen ba bëree waagu ñaay yàlla na ko yàlla yërëm ndeysaan. maire Marie Ndiaye yàlla na ko yàlla yërëm. nuyu waa Ndar tamit euh, macha allah. Mhm. waaw xam nga euh, dafa am lu logique maanaam loo xam ne xel moom la nangu bokk. suñu comprendre dafa am luy xel ni nangu même buñ la waxul ne lii texte la. Mhm. wala lii alxuraan la. wala lii la ñu noonu ci penc mi sax dafa am yu xel di nangu am yu xel di di bañ. mooy parcourir bi nga xam ne révolution bi jaar na ci te ma wax ne niroowul ak yenn accès yi maanaam boo xoolee régime yi fi jaar yëpp ni ñu accès ci nguur dafa wuteeg bii mhm. c'est exceptionnel moo tax yi fiy gis yi nga fi gis day nekk lu exceptionnel maanaam lan nga koy résumer dafa yomb lool booy euh, malgré ñi tàng nañu ñi wax nañu wax ju tàng ñi génn nañu ñi yuuxu malgré tout ça ma ma ma ma ma ma dalal leen tamit ci loolu ndax euh, defoon ndànk baaxoon na lool xëy na léeg-léeg nag dañuy mer bi bu ñu génnee. xëy mhm. na ñu déborder ci wax yi mais da leen di comprendre su ko defee tamit li ko waral mooy loolu rek parce que tamit du nekkatuñu ci benn parti. Mhm. dañu nekk ci benn patrie. Mhm. patrie li mooy dund patrie maanaam réew mi moo ñu ñor jëmm yi ñoratuñu. Mm. bi ci topp mooy Euh, pact bi nga xam ne moom la Sonko signé xale yi. waaw euh, mooy fes nii ni ñu ko bëggee ni mu leen bëggee. Mhm. comme ñoom nag dañu gaaroon seen bakken ci li mu indi mm. ngir lan sopp ko. fu mu dee fu mu bëgg dee ñu dee fa nangu faa dee fu ñu ko bëgg a tëjee ñu tëj leen fa ba pare nag mu digoon leen ay mbir ne damaa bëgg ku loxoom set. Mhm. damaa bëgg koo xam ne mosul luubal dara ci réew mi. waaw kon bu ñu jékkee gis ci wetam koo xam ne moom xamu ko. wala xamul ni mu demee. Mhm. ñu gis ko ci mbir mi day jaadukat ñu ne ko déet sëñ Ousmane kooku ñu la andil day laajal ay mbiram mbir mi nii la nii la. Mhm. teg sax yemuñ ci wax ñu génneel ko tuuqi duunaam ya nga xam ne moom la sañoon a wax ci jamono mu ñaawoon lool lool lool lool. Mhm. kon boog jaaduwul nga togg ba mu neex. ña nga yo ña nga àndaloon ca sànce ma nga yekkal ko ñeneen bàyyi leen. kon foofu la xale yi réagiré mooy affaire éthique la affaire gëm dara la. affaire bañ a buruxlu la affaire bañ a meloon nii suba di zone suba te nag gàcce la na waroon doon ci biir li nga xam ne moo di régime bi mu warook waxu ñi nga xam ne ñoo daan wax démb ba bëgguñu ku mel nii mhm. yi xew ñu noppi ko ëppoon naa noppi maanaam inconvénients yu bëri contradictoire yu bëri moo naroon am su kii wéyoon ci mbir mi waaw te nag baaxul ci xale yi ndax li may wax ne mooy euh, xale boo xam ne saa ko ne hëpp mën na sànni mbaajam wuyu si la mhm. mën na bañ a sëlmu sax wuyu la kooku dafa jar nga koy dégg te Ousmane am na sens écoute moom la ma kundul di wax <laughs> dafa dugg xam la Ousmane xam nga dafa liggéey booy xam lan la mm-hmm. wax la ne complicité bi rek la quoi parce que fi ko xale yi la naa la xamal projet bu oustaz euh, kundul ni mm-hmm. ci Sonko fonkoo fonkee xale yi fonk ci sax yenn mag yi mm-hmm. pas fonkul mag yi mais xale yi dafa am fu ko féete cër bu ñu ci am waaw cër bu ñu ci am bokk laa bëgg a wax waaw mën nga comprendre mag Pastef sax nga ne mënoon nañu noppalu mais xale yi ko xam ne sa dund mën nga xaar ne ah maa ngi ci buntu dund. Mhm. mag sax mënoon na ne non man léegi ma dem mais xale yi gaar seen bakken ba am ñu dee Sonko loolu mënu ñàkk déglu xale yi daal. te loolu logique la te moo tax loo ci gis li war def na ko après mën nañ ci gën a xuusaat. kon mhm. loolu rek moo mais du meru. Mhm. iñaane benn jëmma wala bokk soxore benn jëmma waaye jëmma ji jëfam la gaa ñi bañ. su seetoon rek kenn du wax. Bécaye noo mën a comprendre réaction patriote yi gannaaw bi ñu nommé Samba. Samba. waaw. nomination Samba dafa am lu mu jàngalaat lu bëri. ci histoire politique Sénégal. Hmm. dafa am fu Sénégal yu jógee am fuñ egsi am fu ñu war a dem. Hmm. benn moo Sénégal yëpp di ko wax wala ñaar rupture ak jubbante jub ak jubal. Hmm. surtout le mot rupture. ñu gis à chaque fois su nguur doon ñëw ci boo demee ci jamonoy Abdoulaye Wade. waaw Abdoulaye Wade dafa falu en 2000 ay transhumants ñëw. jël leen. am ñoo xam sax dañ leen épinglé woon ku ñëw ci moom rek ñu bàyyi la. waaw soo seetloo si la ñoom ay ñoom waa nekkoon Cees euh, kii Cees Baye Diouf ñu bëri ci lañ perte daanaka seen avenir politique yu bëri parce que dañu ànd ko seen ngor duñ dem mhm. leen ci fekk fekk leen si ñu nangoon transhumé ànd ak moom ku ñëw mu fat la ñu yaakaar ne loolu ñu xeex ko ñun en 2011 2012 place de l'Obélisque di xeex ay bakkan rot mm. Macky Sall falu damay wax ne Macky Sall ci deret la faloo ci deret la wàccee waaw Macky falu xale yi doon xeex loolu ñu yaakaar ne Macky Sall am nañ yaakaar ci moom ndax ndaw la vraiment dana dégg ndaw yi mhm. malheureusement mu départ far drapé. Mhm. mooy transhumants yi ñëw mu consommé leen. ñoom Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko son excellence Bassirou Diomaye Faye ak le président Ousmane Sonko le président de Pastef. xale yi reyante aussi tamit ay bakkan rot. lu nekk ay indi benn concept mooy def na projet. Mhm. wax nag lan mooy éthique maam yëf yi projet bi lan maam lan moo koy suuxat. Mhm. loolu mu waxoon nag nit ñi kontaan gëm seen bopp. parce que damay wax ni gis nga Ousmane Sonko li mu am tey am na benn leader politique bu fi nekkoon nit ñëpp amoon yaakaar ci moom mais da koo mooy Idriss Seck mhm. mooy wax tey ñëpp doon déglu. waaw ah, waaw mais lan moo tax tey mu perte mooy njaaba njale xamutul fan lay taxaw mu dem ba nit ñi xam ne kii xamutul fi muy taxaw gars yi maam toog seetal 2004 2005 ba 2024. Mhm. wala ba 2016 yàlla fëlal Ousmane Sonko mais ci biir 2021 2022 2023 2024 si la ko yàlla defee mu exploité wu ñëpp gis ko kenn ku nekk nag di gis sa bopp ci moom mooy lu waykat boo xam ne nahnu lazani tahababat arwauna min qabli xalqillaahi fi natil alami na ko mm-hmm. bayni mm-hmm. mu ngi dox suñu diggante man ak yow loo xam ne mbëggeel gu sincère goo xam ne ci aadamul arwaax yi la ko yàlla tëggee woon booba yow nekkoo woon man nekkuma mais yàlla booleñ ci aadamul kon kooku su amee xel du ko loolu du ko dàq mukk léegi nag kan moo ñëw Samba. dégg nga léegi-léegi poste Ousmane Sonko bi li mu war Samba ci nomination daanaka coalition bi ñëw ñëw proposé ko. kon moom mën naa ko ñàkk xam Samba. da nga ciy benn aussi tamit maam mooy euh, détails yi ñu ci war a xam yëpp li ma yor naan enquête de moralité yooyu yëpp des na. des na mais euh, dañ ñëw ci détail su ne ñoo gën a dugg ci xóotal après waxtaan bi. Mhm. mais dama la bëgg na la maam maam Pastef tey taxawaay bi ñu taxaw nekk bar ay garde fou face ak li maam boo booy wax ci démocratie parti da koy rafet rafetlu parce que loolu la ñuy xaar. Mhm. damay wax ne tey ci suba dama ko wax fee sama chronique bi man leen fi ku nekk kenn kaasut Jean Baptiste Tine nañ ko faru Pastef. Mabouba Diagne Mabouba Diagne nommé nañ ko faru Pastef. Mhm. le général Birame Diop nommé nañ ko faru Pastef. Bal barki démb fii am na ku ñu fi nommé mooy ki nga xam ne mooy yore affaire religieux yi. Dramé mosul imam Dramé boobu. Oustaz Dramé boobu musul militaire passif ah. musul dem front mu xamu leen. Mm-hmm. politique du ci wax. du ci wax musu ne musu nee na man musumaa gis Diomaye musumaa gis Ousmane Sonko ñun na ko tamit kenn kaasu ko gisoo booy booy booy passif yëpp di léegi yow yuux barki dégg barki démb euh, chef pèlerinage le général bi ñu ñemee noonu mais tey su leen neexoon mu dab na ñoom mérite nañ ko ay borom xam-xam ñoo fi nekk ñoo xam ne dégg nañ tubaab dégg français. Mm-hmm. dégg arabe dégg français. te mënoon noonu leen ko def mais ba ba Ousmane Sonko defee ñoom ñëpp dañoo noppi. rasé na kontaan nañ. mais li tax kon sàmm ñun dama ko rek ñun report ñun ñuy riposte mais war nga xam ne kon jam-jam la ci ñoom. maanaam xet ci ñoom la. xet boobu nag ñoom duñ ko def dara dul manifesté wu. wan na xew neexuñu. te loolu mooy ànd ak nit. nit su ngeen ànd rek ngeen ànd ci dëgg. su dëgg jotee dañuy wax ne lii mooy dëgg su ñu dugg maam su nekkul dëgg ñu ne kii nekkul ci dëgg te dëmb ak tey tey ku xool internet bi xool. ah booy yëpp dañ ko doon manifester. ah waaw bu actualité yi xewoon ci dëkk bi sax daanaka lépp dañ ko mbëbb. loolu nag da ciy jànge benn affaire aussi tamit la puissance de Pastef. waay waay léegi nag Ousmane Sonko dama leen déggee mooy sàmm li mu def man dama wax ne man su ma bokkoon ak sàmm mu nekk sama papa wala sama nijaay wala mu nekk sama grand mooy coow li ba ndiiraan gi di jug xale yi di wax sax mën naa jàpp ne xale yi ñooy wax. mais soo demee ba ay leader ay responsable ay responsable. Mhm. Waly Diouf Bodiang ko gën a jege Ousmane Sonko. Fadilou Keita. Guy Marius Sagna. Mhm. Cheikh Thioro Mbacké. waay Abbas Fall. Maimouna Bousso Maimouna Bousso mhm. Fadilou Keita surtout Fadilou Keita mhm, mais ñun soo amee xel looy njëkk a wax président Diomaye dama la bëgg libéré maam li waa ji wax suy ñàkk sax maam sooy sooy booy dem sax na dem defin bi rafet ah xool naa ba xool nag li ëpp ci si yéen nanguwuñ gis naa ne sax mu ngi leen bëgg indi beneen problème mooy bis gi tey bàyyil ma démissionné bind lettre démission bi ñu publier ko ne ah sa waay démissionné giif am après ëllëg am na luy ñëwaat ci kanam bu dul yow sax sa waa parti mën na leen seet dara kenn du ko yëg mais malheureusement day dafa am lu muy montré mooy waa ji mooy pom projet sax ñoro ko intérêt rek ko ñor tey man wóor na ma wóor yàlla bu doon imam mi lañ ñoomee mu bokk ci Pastef problème yi nar a tollu fi mu ne Ousmane bàyyil ma démissionné ah ah <laughs> kilifa bu mag yow Euh, dafa mos wax benn wax mooy ji yàgg càmm daf na juróomi faa kenn ku nekk na ko moytu maa koy oustaz léegi léegi. Mhm. mooy ñu fal la faali woo ñi la fal da ngay fuy fo ba folleeku. Mhm. te Ousmane Sonko nag faale na ay nitam. xam nga mbir mi déggoo ci média classique bi ñu ciy wax. mais ce sont réseaux sociaux yi ñoo ko porté mu def benn effet kon Ousmane Sonko li ko fal mooy réseaux sociaux yi fàttewu ko moom réaction booy rek tey génn dalal leen aussi tamit ñaaxaat leen na leen dem ci. dara ñëw ci réaction boobu. voilà imaam euh, mu génnee euh, euh, bataaxal. ne jot na ni booy manifester.